jërëjëf mbokku ennot bu 221 people ñoo ngi ci nuyuwaat kenn ku nekk di delluwaat sa wàccuwaay amaat kontaan ak mbégte bu baax comme ni ma ko faral def saa su nekk kilifa yi wala sëriñ boo xamee dama laa dalal ci biir site bi rek. saa su nekk damay bëgg ñuy waxtaan ci xam-xam di ci yaatal bu baax a baax acca tey nag dala laan leen benn gan di benn kàngam nga xam ne ñu ngi ko xam mu dëkk Touba ko ko xam-xam ko ci jàng ak jàngale ci yore daara euh, waaye ñaan ak pajit mu ngi ci yëngatu bu baax a baax kooku mooy Serigne Massamba Gaye Alfaroox dinañ waxtaan ci kan bi nga xam ne dëgg dëgmal nañ ko rawatina Cameroun ak Sénégal bi nga xam ne bëgg nañoo xam kan mooy gagné du fekkee Sénégal mooy gagné 2-0 nga wax ñu ko du fekkee Cameroun mooy gagné 3-0 xam waaye bëgg nañoo xam bi yoon kan mooy jël coupe bi ci politiku Sénégal dinañ ci yaatal euh, mu wax ñu ki nga xam ne gis na ko namm naa doon candidat boobu mu jël cinquième président du Sénégal loolu lépp loo xam ne lu ñu war a waxtaane la waaye xew-xew jamono ak ñaan ak paj dinañ ci waxtaan kilifa gi damay bàyyi nga néew bokk askan bi bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi siyaare mboolem ñiy teewlu émission bi ci 221 people di ñaan suñu boroom suñ kàddu fekk leen ci jaam ak salaam di leen nuyu di leen siyaar yéen ñëpp mhm. asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Massamba acca am na solo gannaaw ni yooyu set yooyu tànt ak dal ñu ngi ciy kontaan bu baax acca dama bëgg ñu tel si waxtaan ci xaar doon te ñeen ñaa ngi koy wooye seet dafa bëri to yaatu ana nan nga ciy jëflanteeg jaam yàlla ban façon la doon waa suñu seex lu demee ni listixaar mhm. ak ci wàllu seet kooku moom dama naan suñu borom may na ma ci lu baree bari du ma ne lu mayut kenn ndax yàlla lu may nit may na ko ay moroomam waaye ni ma ci gisee sama bopp ak seet li may wan ak hmm. firnde yi may jox néew na lool nga dem ci sëriñ fekk ko fa cey ndax la ci wax lu leer naññi macha loo xam ne looy teg baaraam lay doon hmm, bismillah xam ki boo koy seetal ci wàlluk seet su seet nag su fekkee foo mën ni nekk ci ci réew mi ak hmm. bitim réew boo ñu wooyee téléphone jox ma sa tur ak sa tur yaay sa date de incha allah dañ la xoolal ci ram li seet bu gaaw yar mhm. sax ngay coupé téléphone bi tarkal la bu fekkente ne da soxla wàllu listixaar moom it ba tey da ngay bàyyi ba guddi nga woonu jox ni sa tur ak sa turu yaay mhm. waaye loolu moom par kenn nit ngay mën a jël listixaar waaw ah, oh. danañ la ci wax lu wér a a wér loo xam ne mhm. soo noppee da nga jàpp ne daa am leneen ñuy informé lu bokkut ak listixaar ah. <laughs> loolu moom lu wér a wér lañ ci yoroon macha allah loolu nag nekkatul loo xam ne sax lu ñu toog di publicité la ndax ñu baree bari mhm. teg nañ seen bët ñi may dégg it te jëflante ceeg man xam nañ ci bu baax a baax mhm. ci suñu wàllu doxin ci seet ak listixaar macha allah kon mu nga noonu jërëjëf sëriñ Massamba Gaye acca ñu dox ba léegi wéel des ci émission bi yaatal dama ñëw ci rab rab nag bëgg naa ñu siwaat yi ak ni nga koy faje donte ñu bari am nañu gàllankoor waaye rab rek lañ koy jiiñ ci laa bëgg ñu dellusiwaat waaw kay da may wax nag ci loo xam ne. damay jàpp ne sama xam-xam daa gën a màccee ci côté boobu. macha allah mooy ci wàllug faj. Mhm. ci wàllug rab. mu mën la cee jox ay faram-fàcce yu leer naññi. Mhm. gis nga rab dafa bari lu mu yàq ci doomu aadama. <sighs> te nit ñi di ko teg ak tayef. parfois da nga koy gis maa ngi ci waxtaane sama benn xarit barki démb. Mhm. gis ci jëmm joo xam ne suñ borom da koo nattoo ci màndi. ak gees. pourtant lu ne daj nañ ko ci. waaw mais ñu ko indee ci man bi ma ko xoolee rab. moo ko jàpp moo koy xiirtal ci xeet yooyu. cay rab rab dana xiirtal ci nit. Mhm. di ko jël loo alali jàmbur. waaw da gis koo xam ne day jël lu ñàkk fayda. Mhm. wala 3000 wala 2500. ñu mhm. dóor ko ci ba muy bëgg a dee. waaw bu xëyee suba delluwaat ci. ndeysaan kon loolu boo xoolee danga xam ne kii am na lu xew. rab da ciy xiirtal nit. rabit day jël nit. jël loo xam ne saaru mbalit la wala wetit nga gis dof boo xam ne day nekk ci sën. toog fa yor ay bagage yu bari pourtant la muy xujure xujure mhm. rab da koy sopp ba mel ni oor ci moom nga xam ne loolu nga jël bagage yooyu noonu di ko mhm. jox or bagage yi moo koy gënal fuuf mhm. da koy melal melokaan wax comme or ak wurus waaw nga gis nit ki suñ borom def ci moom am xelam mu tàggook moom waaw nga gis ko moo topp ci mbedd yi di lekk ay wettit yoo xam ne tey yow bu la xeeñoon rek ngay bëgg a dee mais jàppal ne jamono jooju mu koy tiim di ko lekk loola comme tufe lay doon wala miss yu ci moom neexaay neexit wi foo koy takk day weesu weesu na ko wala yasib ndax rab moo koy xiirta ci lu demee noonu mhm. nga gis koo xam ne day jaay boppam muy njaalo mhm. nit ñëpp jàpp ko nit ku bon waaye soo ko xoolee ba ci biir rab da koy def nit rab kon rab <laughs> daa man lu baree baree bari loo xam nit ñi duñ ko foog mhm. waaye ñun nag bu la yàlla dimbalee ba nga agsi ci ñun wala nga am suñ contact woo ñu téléphone ñu xoolal la ko ba xam ne lii lu ñu mën a faj la waaw ci kàttanu yàlla ñu ca jaxasoo ab diir bu néew dañ ci gis résultat mhm. waaye nekkul nag ñëpp lañ mën a faj ah. waaw nekkul nag ñëpp lañ mën a faj macha allah pour mu leer dañ lay xoolal ci wàllu listixaar ndax kooku soo koy xoolal ay mbiram mhm. faaw ci wàllu listixaar nga ko mën a xool xam ba xam kii ban rab moo ko jàpp ak lii ban sarax nga ci def ak ci ban fànn nga ciy jaar mhm. ngir mën koo faj su fekkee loolu man la dañ cay soobu suñ ko mënut espace ah. dañ lay wax wax dëgg yàlla am nañ ci ngat nga jéem a xooli keneen mu ngook jërëjëf Massamba aca euh, ñu dox ba léegi wéel nee naa leen du naqare jot ndax numéro bi moo affiché noonu suufu barre d'écran bi leer naañ soo ko contacté dina jëflante yow ba sa xool sedd guy aca dama ñëw ci nopp ndax nit ñi féewaloo yi dafa bëri ci biir kër yi ba ci soxna yeeg euh, mën naa ne ñi nga xam ne ñoo leen yore euh, lii bëgg naa nga am loo leen ci jàppale nopp bi nga xam ne yaa ngi koy def waaw loolu nag ci wàllug nopp danaa ci laabire nit ñu lu baree bari waaw sëy tas na fi ba tàyyi mm-hmm. mystique tas ko ah. wala ay waxi sew sewaan yoo xam ne du dara mm-hmm. wallahi noob gi ci liggéey ñun de duñ ne noobu vingt quatre heures duñ ne jooni jooni waaye trois jours lañ làppal ah. su fekkee jigéen ji nga xam ne daa nekkoon ci kër di sëy mm-hmm. wala mu nekk ci relation dem ba am ci yaakaar lool ay loxo yàq ko wala ay waxi sew sewaan ci wàllu rambaaj yàq ko kooka mën nañ koo réparer ci bu ci yàlla àndee ci trois jours macha allah su fekkente ni ku góor ki dalaa wonoon gannaaw ba déggatoo ko mhm. buñ ci liggéey la ñuy liggéey feek ñetti fan mhm. insha allahu rabbi jëru jërul sax yow nga koy woo waaw toogal di ko déglu moom moo lay wool boppam lu waay mën bu fekkee ne ku góor ki mhm. yore soxnaam ci biir kër ay dëddale jaar ci ndax loolu bari na lool ci couple yi fi mu toll nii bu fekkoonte ne da ngaa tànn téeméeri couple pour nga gis ci ñaar yoo xam ne rek dafa naturel dara nekku seen diggante liggéey nekku ci daddale nekku ci mhm. loolu yombul <laughs> waaye nag képp ku ko yàlla nattoo waaw nga dégg suñ kàddu gi mhm. bañ bañ jokkalante insha allahu rabbi mhm. muy góor muy jigéen dañ ko réparé trois jours macha allah ci nag mu ànd ak dogal bi yàlla bu ci yàlla àndee mu ko ndax ñun ay jullit lañ waaw duñ dogg ci dara ne lii day am force wala faaw day am de loolu ay ay jullit lañ waaye li ñuy wax am nañ ci yaqin ak yaakaar ju wér a wér ndax loo jëf jëfati ko ah. loola di nga xam loo man la wala loo mënul xam-xam luñ gëstu la. waaw leneen li ci toppit luñ donn la. macha allah comme ni ko gars yi di waxee. donn day dëgg ne ne ne dereeti mbër. Mm-hmm. wala xaalisu mbër la ngénte waaye ñu ni jàpp naa ne xaalisu asrar moom la ñu ngénte macha allah kon lenn li ci deret la li ci des luñ gëstu ji la sonn ci lool loolu am na solo cheikh bi tarkal la jërëjëf kon aca noob baa ngi noonu te lim ci liggéey euh, weesuut 72 heures mu di ñetti fan kon ñàkk a moom wóorut aca ñu dox ma léegi wéelu ñëw ci lu bokk ci impuissance sexuelle mu di feebar boobu ñuy wooyee néew kàttan bëgg naa ñu waat ci euh, nga am loo leen ci baaxee waaw wàllu néew kàttan loola moom dañ cee dajale lu baree baree bari mhm. ci ay matières yu bokkul ci ay façon yu bokkul <laughs> nit ki soo ñëwee ci ñun mhm. nga leeral ñu ci sa wàllu ngóora waaw nga wax ñu ni mu lay dikkee mhm. duñu duñ tëb tëb rek yëkkati garab jox la ah. parce que am na ñoo xam ne dañuy néew kàttan parfois dañ leen yàq ah. ci ngir bu ñuy jaxasoo ak seeni soxna fañ war a àgg duñ fa àgg am na ñoo xam ne comme ni ma ko waxoon ci wàllu rab rab leen di jàpp waaw ba tey dañuy yëg seen bopp waaye bu ñu ànd ak seen soxna fañ war a àgg duñ fa àgg loolu rab da koy def ñii <sighs> ndoxum siti da leen koy def waaw même hémorroïde sax day dem ba tey góor <sighs> nit ki nag bala ngaa jël ci moom benn engagement di ko jox garabu kàttan waaw da ba xam lan moo ko téye su fekkee rab la da nga ko war a faj ba tàggali ko rab ba <laughs> doog koo jox luy dolli kàttanam tarka am na ci loo xam ne buñ ko liggéeyee ba pare ba jox la ko mhm. fekk faj nañ gàllankoor bi nekkoon ci yow ba pare waaw yaakaar naa boo demee ci sa soxna dana kontaan lool macha allah bu fekkee benn nga yoroon dañ ci dolli muy ñaar bu dee ñaar da nga dolli muy ñett tarka la loolu moom lu ma wóolu la waaw waaw am ci yaqin am ci preuve yu leer mhm. am na ci ñoo xam ne ñu ngi dégg sama kàddu waaw ñoom danañ ci mat seere ndax jaar naa ci ay nit ay nit nit macha allah kon nga noonu acca kon ñu dox ba léegi wala sëñ bi euh, ma ñëw ci wàllum papier mu di ñi nga xam ne suñ ko waxee seen xel dina jëm ci tukki waaye ñu bëgg nga xam ne dañoo bëgg a déposer ngir am xëy passeport visa séjour ba ci permis de conduire bëgg naa ñu waxtaan ci bu baax a baax wàllum këyit mhm. loolu dafa am spécial ci nuñ cay ñaanee mhm. euh, dégg naa ci lu ne ah. am naa ci teraanga ju ne ci ngir nit di wut ay papier est-ce que mu jafe ko lool mooy ki nga xam ne dafa nekk bitim réew hmm. yàgg fa lool bëgg ay papier pour delsi mu të ko waaw ak ki nga xam ne dafa nekk ci réew mi waaw bëgg ay papier pour hmm, tukki mu jafe ko mooy hmm. kayit bu mu mën di doon insha allahu rabbi su fekkente ne maam déggoo nañ ci ay kàddu ñu liggéeyal la ca loola de du jafe ci yow soo ko àndoon ak téeméeri nit waaw insha allahu rabbi ñu ne kenn rek lañ ciy may ci kàttanu yàlla suñ ca jëflantee kenn kooka yow lay doon insha allahu rabbi macha allah loolu moom ñi nekk bitim réew xam nañ ma ci bu baax a baax ci wàllu papier mu ko ok macha allah jërëjëf am na solo ñëwal ma ci bayre bu sax sàpp bi nga xam ne yaa ngi koy def bayre nag su ma koy laaj bokkul ci bayre boo xam ne dañ lay tudd rek mais benn njariñ doo ko am doo ci am dara bayre boo xam ne da nga xel di mos waaw waa bayre dafa bëri ay façon waaw bayra <laughs> am na bayre boo xam ne pour góor la mhm. am bayre boo xam ne pour jigéen la mhm. bayre njaay am na bayre mbooloo am na mhm. waaye man na dama daan bayre yooyu yëpp benn amu ci njariñ waaw bayre bi ëpp njariñ ci nit ki nga xam ne daa nekk ci àdduna te bëgg a tedd mooy bayre bu ànd ak da am nit ñi te nit ñi am solo la la indil lu am solo ko ndax am bayre boo xam ne da lay xëccal nit ñi te dolli buri ak coow <laughs> te amuloo la benn njariñ loolu amul njariñ bayre bii ñu liggéey nag suñu la ko liggéey dañ ci boolee kaaraange lañ la ciy booleel. macha allah dañ la ci boole ubbikaay. Mhm. boobu moom dama naan sax gone attunu ko. <sighs> te képp ma la koo jox dinaa la ñag ba pare. loolu moo am solo ne ndax. boo wootee ñëppay wuy si waaye dañ la ciy jiital kaaraange ak yaramu neex ba noppi <sighs> wutal la bayre mhm. bayre ba day ànd ak ubbikaay macha allah bu fekkee ci wàllu bayre dañuy liggéey loo xam ne spécial pour xaalis koo xam na <sighs> dafa nekkoon ci liggéey am fa jafe-jafe mm-hmm. wala muy toog di poosam di woyof waaw muy bëgg muy dox poosam di diis mm-hmm. di am lu ne gàññ waaw ci bu ci yàlla àndee loolu dañ koy liggéey wàllu xaalis moom dañ ci bëri ay façon yu ñu liggéey ah. waaye am na ci loo xam ne mënee su koo leeral waaw waaw li li féeg rek mën la ko leeral ma da ngay jël suñu numéro téléphone mm-hmm. incha allah boo ma wooyee. waaw ci kat ne dinaa la teg ci programme boo xam ne. tarkal la bu dee bari la rek nga bëgg di di am incha allah rabbi. tarkal ndax ñaan dara. waaw ñaan dara. <laughs> lépp lu ñu ñaan rek ci sunu borom rek. lañ koy tàllal. tarkal la ak alxuraan ak ñi nga xam moom la ñu booleel ndax ñun xamuñu lenn. <laughs> alxuraan. ak turu yàlla yu sell yi. macha allah kon mu nga noonu acca ana nan ngay jëflanteeg ñi nga xam ne dañoo bëgg a ubbeeku ci xaalis. waaw ubbeeku ci wàllu xaalis. waaw loolu secret yi bari na trop. waaw ci wàllu xaalis. Mm-hmm. waaye da ci am loo xam ne neexut a leeral. Uh-huh. day xaw a doy waar. tarkalla mais am na ci ñoo xam ne tey jii. Mm-hmm. wallahi demoon nañ ba tool diggante boo xam ne dañ daan am problème. waaw fay location. Mm-hmm. bi yàlla dogalee ñu jëflante ci wàllu xaalis. waaw fi mu toll ñu ngi sant bu baax a baax a baax. tarkalla waaye am na loo xam ne nag pour mu leer la dëgg-dëgg. Mm-hmm. dañ may contacter nañ ma woo. wala ñu ñëw fekk si ma sama dëkk Touba. incha allahu rabbi loolu moom lu ñuy liggéey la ba nga teg ci bët incha allah macha allah jërëjëf mu ngi noonu aca numéro bi mooy daw doon suufu baar d'écran bi leer nañ jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yu am solo yi aca euh, nga ne ban candidat nga gis ci élection yi mu jiite réew mi gagné ko 2024 waaw xam naa nag su fekkee ci wàllu politique mhm. ñun dañuy sukkandiku ci Seydina Omar li waxoon ah. ne yàlla suñ boroom dina faral wan jaamam mhm. lii xew suba kooka it dem ba bëgg a toog place suñu borom. Mhm. toog di wax ne ëllëg nangam dina am. Mhm. suñu boroom xëy njuy njuy ko. waaw wan ko ne moom képp mooy borom nguur gi. Mhm. loolu moom. dama naan loolu yëfi yëfi suñ boroom la nañ ko bàyyeeg suñ borom. tarkal la yàlla képp nag. moo xam ki nga xam ne moo war a yor réew mi. 2024. keneen ku génn wax la lii ma wax la lu lii ma la wax. daa waxee bakkanam rek. Ah. ak bëgg bës. képp. waaye ñun nag bëgg bës duñu jaral wax loo xam ne xamuñu ko wala hmm. yaakaar lañ ci am wala luñ gis ci gént la <sighs> ndax dama naan leen ñaan hmm. ak faj bokk maanaam tey nga toog naan 2024 euh, hmm. sàngam mooy nekk candidat mooy yore réew mi déedéet loolu du xam-xam xam nga lan mooy xam-xam mooy nit ki indi aajoom di ko jaaxal lool mu leen na ko mënu ci dara yow nga dugg ci li nga xam ci say bagage mhm. nga gis ko ñaanal ko mu gis récitant waaye ah. taxaw nangam day am mhm. suba ginnaaw suba nangam day am mhm. yooyu du dara parfois ay tollale rek ci gaa yi tarkal la dama koy toog nii di leen gis ci télé yi ci internet bi mais li muy wax damay gëm ne kii li wax sax moom gëmu ah. man nag yàlla dafa ma bindee du ma wax lu ma gëmut tarkal la waaw duñ sukkandikoo ci xam-xam li la suñuy borom dénk lan nga gis ci élection yi waaw élection yi li ma ci gis damay ñaan yàlla rek ah. suñu borom def ci tawfeex kan moom la yàlla tànn mm. ne kii mooy toog mooy yore réew mi mm. kooka ñu ànd ci ak moom rek ndax yàlla lu mu dogal kenn mënu ci dara <laughs> waaye suñ xol nag ak suñu mm. yéene suñ pastos moom ñun jëriñoo laaj ki ñu bëgg mu nekkoon candidat yore réew mi moom Ousmane Sonko rek la ñu ñaanal saa yu ne dañuy toog ci suñu suñu barab di ko ñaanal ñaan goo xam ne mhm. wax dëgg yàlla duñ ko seereel kenn yàlla rek lañ koy seereel mhm. bu jëree jàngi kaamil dañ koy def bu jëree jàngi limu yaasin dañ koy def bu mhm. jëree jër turu yàlla dañ koy téye ngir di ko ñaanal suñu borom jotale ko ci réew même bu dul 2024 it di beneen yoon ah. ndax am nañ ci moom yaakaar ñun ah. ñi buñ dee wax xam dara sax ci lu wàll xeetoog politique ci moom laa ko xamee ba fii ngay waxee ni seen a hmm. a Ah. duñ dogg ne Ousmane Sonko 2024 mooy doon candidat mhm. mooy jël réew mi loolu duñ ca dogg ah. ndax suñ borom danañ wan mhm. waaye nag danañ ko jox cër bu baax te xam ne moom képp moo matale moo xam lii xew ëllëg tarkal la waaw foofu daal foofu laa ci taxaw boobu jërëjëf mhm. suñ duggee ci kan bi ñu ngi ci kan bi Sénégal moo yore fi mu ne nii mën naa ne coupe bi gis nga fenn foo xam ne moo koy jëlaat ñaareelu yoon ndax yi bëgg nañ ko de wala da koy ñàkk bi yoon waaw Sénégal moom sunu gaal la ñun ñëpp ci lañ bokk képp ku fi nekkit sa doomu réew génn di jogante ji ak lu mu man di doon da ko yéene la muy ji mu jot ci ndax bu buñ ci jotee mhm. ñun lañ ci jotal rek mënuñoo wax wax ba bokkuñu ci réew mi mhm. waaye ñun nag suñu borom mhm. daf ñoo nattoo ñu nekk ay ndongo yi daara ci daara lan yoroo ban fa jógee ci lañ continué waat nekk ci parfois sax mbir dana am ba jàll te duñ ko yëg lu mel ni football bi ak leneen lu mel lu ko nuru ah. ndax xëy na jot gi ak temps bi duna ko may ndax waxtu yi ci bëree bëri ba mu koy def ñu ngi ci mbaaru mbaaru ma di jàngale alquran mm-hmm. waaye fu ñu ko yéegee dana leen ñaan yàlla def ci ndam waaye nag euh, ba tey comme ni ma ko waxee woon rek ci mm-hmm. politique bi amuñu yàqiin na Sénégal de indi coupe bi la amuñ ci yàqiin <sighs> déedéet amuñ ci yàqiin ñi ngi koy ñaan nag suñu borom defa leen tawféex ndax lan ko jëlee woon mm-hmm. ca bee ñu jëlewaat ko comme bii ñu bii ñu dëgmal ñu leen ci ñaanal ndam bu baax mais ci yaakaar daal nga wax bi yoon mu jëlaat ko waaw am nañ ci yaakaar rek yaakaar ah. rek lañ ci am comme ni ko gars yi amee yaakaar rek ah. waaye nag amuñ ci yaqin <laughs> Sénégal day jël coupe bi wala Gambie gii mu war a mhm. da koy door déedéet loolu amuñ ci benn amuñ ci yaqin daal déedéet ci match bi mu di Sénégal euh, Cameroun mhm. ajjuma incha allah mhm. kan mooy gagné ji match bi Sénégal Cameroun sama wax ji moom laay dellu si waat rek sëñ Cheikh ndax damaa nekk nit koo xam ne damay responsabilité <coughs> yor ay tout tànk sama daara boo fa ñëwoon da nga ko fekk lu lu mu néew néew téeméeri dong da nga ko fa fekk <coughs> bëgg naa lu may wax mu doon xam-xam ci samay taalibe bu ñu ko déggee <coughs> ak seeni waajur gën maa nawloo loolu danaa ci bàyyi xel bu baax ndax Sénégal ak Cameroun hmm. soo bëggee dégg dëgg hmm. xaw ma moo ci gañe leen rek laa ci mën ñaan ko fenn déedéet déedéet gis ma ko fenn wax dëgg yàlla ah. gis ma ko fenn wanuñ ma ci dara du gént du dara tarkal la du ko seeti di xool ba xam Sénégal mooy gagné mhm. wala Cameroun mooy gagné waaw ndax li ma lay wax rek am na ci yoo xam ne moom cërub suñu borom la ah. yàlla nag daa am fulla fulla joo xam ne waaw nguuram bi bëgg ko bokk kenn tarkal képp ku ñëw jéem a xat-xat la moom mu toroxal la sëriñ su ci baree bare bare di wax suñu borom di leen njuy mhm. lii rek nii lii képp ko waral da ngay gis nit ki yëngal benn turu wala mu jàng ab lim mhm, ci ay isib ci alquran mhm. tëdd gént dara mhm. jàpp ne loolu mu gént faawu daa war a am fekk ne suñu borom lu mu programme woon la ba bàyyi waaye wax ja koy wax di weer loola rek mën na la caa njuy ndax mi ngi mel ni yow seex tey ñu dugg sama roq mën a yow ngay nëbb waa àdduna bépp sab secret ñu dugal ma ci biirum néeg wax ma ko ma génn waxewaat ko loola faw boo ko déggee di nga ma mere diggante nag doomu aadama yi ak suñ boroom noonu lay demee ah. waaw sañ-sañ boobu daal amuñu ko wax dëgg yàlla kon mu nga wax acca kon ñu bala nga tàggatoo ci lan ngay tàggatoo waaw ci li ñu tàggatoo mooy mooy ñuy gën a bàyyi xel bu baax a baax ci ci ci jëmm yi nga xam ne dañuy woote ci wàllu ñan di gëmal nit ñi mhm. loo xam ne ñoom ñu ngi leen koy gëmal gëmuñu ko mhm. loolu yi dañ leen ci gën a dolliwaat sëriñ si ak mhm. ba pare di encaisser xaalis si jàmbur yi ba pare duñ ca duñ ca góorgóorlu ñaanale ñu gis résultat parce que man nit damay woo ne ma jox naa sëriñ nangam mm-hmm. ay millions mm-hmm. def loo na ma lu ne mm-hmm. te pourtant su ma koy woote sax du ma ko jot téléphone dafa maa bloqué wala changé na numéro téléphone am mais loolu nag àq la nañ gën a góorgóorluwaat baax a baax ci tey doomu aadama yi yaakaar dafa for uh-huh. yaakaar dafa for ki nga xam dafa ñaq xaalisam ba am ko yëkkati jox la daa am ci yow yaakaar nanga ci def sa kéemtulaay kattan def loo man ak loo mënut su laajee waaw waaw waaw bu ko laajee def ko hmm. lu mu laajee def ko nga ngir woyofal xàq jooju àq doomu aadama dafa sew te diis lool mu ngi doon daara ja daara ja la wala lan la waaw daara ja hmm. dafa nekk ñaari daara hmm. benn bi internat la beneen bi ci desit daara joo xam ne dañoo jox ay tuut tànk fu ne la ñuy nag ci réew mi waaye foofa moom du internat dañ dañuy jàng di ñibbi ñuy jàng féete fa waaye foofa duñ fay dara yeneen daara ju yees ji nag boobu internat la waaw boobu moom képp koo xam ne yaa ngi ñëw ci daara ji dañ lay teg ay conditions man laa leeral ni muy demee dañuy jàng dañuy jàngale ba pare boole ci tarbiya ak yar ndax borom Tuubaa mm-hmm. dafa waxoon mag ñi leen dee leen boole jàngale ak yar mm-hmm. su ngeen newee ba ñaar yooyu na ngeen njàngale mi tey yare ndax nit loo am xam-xam te yar woo amul benn njariñ moo tax ñu boole ñaar yëpp waaye mm-hmm. daara yi ñaari daara la benn ba dañ ciy jàngale gratuite moom lañ njëkk samp ci daara amuñoo ndigal di ca laaj dara waaye biñ sampaat ci Tuubaa mi ngi asalem boobu moom képp kuy ñëw dañ lay wax sart yi nañ cey doxee euh, bu la juboo rek incha allah rabbi yaakaar naa njàngale ma baax na lool mm-hmm. ta waaj euh, bañ ko sampeek léegi mm-hmm. yàggul waaye la fa génnee ci ay kàngam bari na lool macha allah jërëjëf jërëjëf